doonee benn service yu état bu Sénégal danañu ci bàyyi xel bu baax a baax journal bi du Sud Quotidien nee na nag ministre Assome Diatta ak état bu Sénégal ñoo ngi dànkaafoo di menacer ñi nga xam na ñooy bailleurs yi yéen gi nee na Assome Diatta ministre du commerce daat nay wax ne location bi jamono ji cher na ba jéggi dayo te état bu Sénégal maanaam dina si jël ay matukaayam ba mu mat sëkk yéen kaay gi di Les Échos xëy dañuy xibaar nañu liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéey stade bu Diamniadio jamono ji ñoom mer nañu ba mara détail yi nee nañu danañu dem ñu leen seeni payoor yéen kaay gi gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xibaar ñu sudee am na ñenn ñoo xam ne ñoo mer ba maara day mooy jàngalekat yi nga xam ne ñoo bootu ci syndicat bi di SAEMS ñoom nee nañu tey jii ci àllarba ji danañu amal ab débrayage maanaam jàng ba ci digg ba daal ko fay dagg wàcce ci suba ci alxames ji danañu amal ab grève total ñoom la nga xam ne moo leen metti bokk na ci accord yi nga xam ne suivé woon nañu ko ak gouvernement bu Sénégal te ba léegi a kaay yéenekaay gu ma jàmbal jaañ gi xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall ay wàll yi sam ji ma ngi koy defar waaye nag na ko leer ne Union africaine bëri na ay dossiers yu tàng yoo xam ne ma ngi fay xaar yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu tëgmal ak élection législative yeek élection au conseil des collectivités territoriales ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi di ministre Antoine Diome ni ki démb ci assemblée nationale nañu ko musiba ak mbelenkaana daat nay wax ne élection yi dina leer nañ te dina jaar yoona te benn firnde du ci am yéen kay gi di Sud Quotidien nee niki témb la Antoine Diome lañ ko doon xaymal ab budget ma waaye nag mbir mi dafa mujjee soppali ko ak règlement de compte député lu ñu waxul Antoine Diome niki témb dañu ko fàtte yéen kay gi di Walfadjri ñu xëy fekk fa Déthié Fall démb nee na Antoine Diome yow xamuloo dara yow ko incompétent nga yow amoo ab dayo sax boo xam ne war ngaa mën a organiser élection waaye na leer na jamono ji Sénégal ma ngi baax te lépp loo xam ne xew na ci élection yow yow yaa responsable Cheikh Bara Dolly Mbacké député ni ki démb yàkk na musiba ak Antoine Diome nee ko Antoine yow kenn wóolu wala yow kenn amul ci yow confiance yow sax yaa waa APR yow lu la Macky Sall wax jëfe ko doo si sa xalaat yow yaay bras armé bu Macky Sall yéen a kaay gi di laas nee Antoine Diome ni ki démb ci assemblée nationale daj na ci assemblée ba loo ne mbur daju ko ca pour yéen a kaay gi di réew mi dañu xibaar dong la ñu ko doon atte ci tribunalum Dakar ndax nee nañu ko dangaa sàcc lu toll ci soixante millions ci crédit mutuel bu Sénégal moom nag caissière bi démb ca tribunal ba nee na nag ab njabarkat ab charlatan camerounais maanaam moo ko liggéey ba nga xam ne lu ma ko laaj ci xaalis maanaam mu daal di koy joxe yéene kaay gi nee na la mu jote joxe lépp bi ñu ko xaymaa toll na ci quarante millions yéene kaay gi nee na tëj nañ ko lu toll si kaso yéene ne ñoo gi nee na am na ñett ñoo xam ne ñuy liggéeyee poste finance ñooñee mandat nañu leen dépôt maanaam yóbbu nañ leen sa kaso ndax dañoo jàpp ne luqu njuur gi seen loxo ma nga ca biir yéenekaay gi de La Tribune nee na neexul ba neexul waaye nag Sénégal jamono ji pëccoxoon na loola jafe-jafe yi am ci réew mi fu ko waaye nat daana koy passé violence bi fépp la amee yéenekaay gi gi de L'As xëy dañu xibaar naan li nga xam ne moo xew ni ki démb ca université Alioune Diop der yi ndax nee nañu seen mbokkum étudiant bi nga xam ne moo amoon lu mu lekk ba daal di faatu loole la ñu bëgg ñu daal di koy lijjanti yéen kaay gi nee na étudiant yi la ca gën a xoromu démb dañoo séquestré ñaari policier maanaam ñaari policier la étudiant yi jàpp teg fitna policier yooyu maanaam xoqutal leen ba pare nag troqal leen ba ñu ne tortu doog leen a libéré gi di wal fajiri ñu xëy fekk fa Pierre Atepa Goudiaby daat nay wax ne corniche bi jamono dafa am benn directeur école boo xam ne dañu ko tuumal na ko yow da ngaa ci benn élève boo xam ne mineur la waaye nag moom bi ñu ko laajee nee na moom maanaam tulu te yegg ci benn xale ba di ko violer ndax dafa amee impuissance sexuelle yéen a kaay gi di star xëy ci ligue des champions que juróom-benneelu bëccëg bi tey jii Barcelone ca Bayern Dominique la jéem yéen a kaay gi na du yomb ci moom ndax juróom-ñetti at a ngi nii Bayern na ñàkkut cab yi yéen a kaay gi nee na Paris Saint-Germain bi nekkoon ci jafe-jafe jamono ma ngi noyyi ma ngi suqale a kaay